sëñ Maama bisimilah ndax sëñ Maama day kenn ci jumelage bi bokk ci mag ñi ko forme euh, jekk na jaadu na mu ubbi ñu jataay bi kon sëñ Maama bisimilah. donc mag mag ñu nekkoon ah nekk caa nekk ba jóge fa wala gannaaw. soo leen ko liggéey war nga caa bàyyi xel te def te loo man ngir boo demee leen fekki doo am dàkk kon nag dama ci soññ sama bopp di leen soññ yéen xale yi leen ci doon leen ko góorgóorlu ah sëñ bi nag moom wàccee naa ñu wax dëgg yàlla dañ koy sant rek te di ko ñaaral ah mu suñ bàyyi ko fan moo rakkam yi ak papaam yi néew bi nag dañ dañ doon ko jàllale ba joxali ko général ba di leen xamale ne ñun suñu xel dafa dal wax dëgg yàlla ndaxte liggéey bi yëpp yëpp xale yi la ñun ñaare yenn saa yi dañuy wax bu ñuy liggéey magal leen suñu affaire bi ñu di xelal ñu xelal leen rek moo fi bàyyi. kon nag dañ leen di ñaareel fépp fu ko yàlla ngeen ko yóbbu fu ko ndax loolu mooy seen ndam di seen ndam lépp lu mën ci jàppale leen ko doon ba ci jàppale incha allah rabbi kàddu yi moom dafa naa ni kan rek la ñuy déglu noo ngi leen sant yéen ñëpp di leen gërëm di leen ñaanal di sant jigéen ñi wax dëgg yàlla bu baax a baax nañ ñëw ndax jigéen ñi jàmbaar lañ lool lool lool ñi bokk ci bureau bi ak ñi si bokkul ñëpp ñëpp ay jàmbaar ndax mbir moom ñenn ko mën a doxal rek bu demee rendre compte bi nga des kon nag sant leen ñëpp gërëm ñëpp di soññi daayira yi ñi ci bokk daayira yi ñi soññi membre yi ak ñi ci bokk ci daayira yi ñuy góorgóorlu daayira dangaa war di jàng wootee bu ñu laajee la joxe loolu mooy doxal daayira ci daayira man ñu ko sosoon la tax ñu sosoon nga xam ne ko jaaxaat taxul ñu sos ko foo taxul ñu sos ko defe naa lii ñu def sëriñ si bàyyi seen te ñëw toog man ñu bàyyi seen te ñëw toog soo woote woon leen doo leen gis lii daaw nga mën a woote gis leen kon nag lii ñu jaaxaat bi foo fonk leen ko ku ko fonk li leneen loo mën a yëngu lii ko gën nanu doole ko góorgóorlu kon teel na bu baax yéen sëñ la topp sunu sëriñ si mënoo lim xam nañ ñëpp xam nañ waaye noon ngi leen di bu baax a baax eh, li may wax moom daanaka maam ma wax ko man sant sant rek laa ci def xam ngeen ni baas bii ni mu tollu ko taxawal ameel nañu leen sant ameel nañu leen gërëm bañ commencé bañ commencé ba léegi biñ commencé biñ biñ commencé ba léegi tey jii laa fi door a taxaw te am nay jamono dañ daan daw way bëgg a dee kon buñ demee ba nangu ko ci suñu loxo di ko taxawee daanu leen sant gërëm leen ñaan leen yal na yàlla guddal fan yi wéeral seen yi te yaatal seeni i wërsëg te barkeel ko sant dong la ñuy def duñ ci bari kàddu ndax tey fi mu toll kër li ñuy déglu lenn dong la kàddu yooyu ma ci dugal sax buñ ma woowoon du ko wax sant na nañu ñëpp jigéen ñi fatuwaari kàlla daayira yi teew si yëpp xam nañ leen sant nañ leen gërëm nañ leen na leen yal na yàlla guddal fan yi wéeral teel yaatal wërsëg yi te barkeel njaboot yi jigéen yal na yàlla barkeel sëy ñi ci amagul boroom kër yal na yàlla may leen ku leen déggool ku leen attan wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñu ngi parrainé bés bi e di genn wàll itam ci kër gi ci kër Cheikh ba ndax naka la mel ak ni mu meloon ak Cheikh Madike Seck ba fii mu toll aku njabootam tey jëlee ko gën a fedd li daay si nga xam ne ñoo seq similage bi xam nañu loolu ba pare ne ko bis bi tey e, njabootam yëpp ñëw nañu sant na gërëm kontaan na ci lool nee na bis bi ni mu rëy ci moom yàlla dongu xam nee na xolam sedd na seddaay boo xam ne si bariwul lu xolam àgge noonu sedd bi ànd naag ñi ma war a àndal ñëpp alla daam jooba ngi ci suba teel la woote ñun nañu waajal bés bi ñu àndi ñëw ara li mu wax wax dëgg yàlla ma ni ma ko waxee noonu waaye sant na gërëm na kontaan na ñaanal na xale yi nga xamante si ñoo taxawe lii xale yi dañoo toog réunion ni wax dëgg yàlla moom lañ ko war a céerali ba ma ko wax ko mu kontaan ci lool taxaw si na tey ànd ak ay njabootam yëpp ñëw nañu ñoo ngi sant di gërëm di leen ñaanal yàlla na yàlla barke léngu yi li mu wax bari na waaye temps bi xat na waaye nee na kontaan na fa kontaan ak fa mu yem daal xolam àgg na fa njabootam yëpp ñëw nañu ñu ngi ci baas bi mu ngi sant leen gërëm e, enveloppe bi ñu ko joxoon mi ngi leen ñu teg ko ci loxo mbokk yi nga xamante ne si ñoo ko war a saytu ngeen baal ñu àq wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu tuma ko waxtu mun ma incha allahu taala wudduma ko tardé yàlla dogal bi muy àgg këram yi woo ko téléphone mbokk ñëwagul sëñ di sëriñ Pape Seck man dama ñëw tey pour représenter sama mag Ibra Fall bi nga xam ne nii moom mooy secrétaire u sëñ bi ñëw aussi ci sama bopp ndax man aussi ci fa bokk ndax man ak Ibra Fall boobu ñoo bokk way jur ndax ñun Mbarick Fall mooy sunu papa euh, ñu nekkoon ay canaba canaba at mu nekk ñu koy firndeel di dem ca canaba kajoor ca gàmmu ga nekk ay taalibe am daayira am dal foofu dafa dem ñun ñëpp ak sunu famille fanaan fa wala dafa ñaari fan pour wane suñu bokk ci Thiénaba bokk googu nag dafa raw sama juddu man ndax damaa judd rek fekk suñu waa kër di sikkar di woy ñoom Badiane Diall ñoom maire Arambay Mati ak mag ñi nga xam ñoo fa nekkoon ñëpp tey yàlla yóbbu leen ñu nekkoon ñoo xam ne jàppoon ci yoon wi booba day daan dem ca Thiénaba gële ci kaw muy Thiénaba Bawol ba tey jii Thiénaba Kajoor nekk avec sëñ Madické Seck borom yàlla nee na ñu continuer di fidèle sunu coloré ak di wane sunu bokk ci cere ba kon dama ñëwoon man ànd ak ba délégation boo xam ne ni ñoom it seeni wayjur ci cere ba la ñu nàmp ci la liggéey ba xëy génn àdduna ñeneen ñi sax seen yaay ñi ngi dund dama nag sama soxna ci taalibe yi la bokk ci daayira bi la bokk ma mooy Mari Faye ak Maguette Fall mi nga xam ne doomu Ami Fall moom Jaal Fall ak Mbarik Fall ak euh, Jëmb Fall ak faama yi nga xam ñoo bokk ñom yaay maram jaxate moy seen yaay di doomu jalfal ak goor gu mbarik fal kon ñun Thiénaba dañ ci sab wahana di wax nak ni li mom man dama koy fay di wax ndax man ci walu tarixa man damay wax lu leer fo xamni fu ma nek dama koy wax même bu fay nek man ben ndong dama nan len man ci Thiénaba laa bu mu bu ñu doon ben nit mom la man seigne borom yàlla nee na ci moom lañ jokk loolu dama koy waxe du lu ma rus du lu ma ragal ndax damay féete man foofu laa dëkk. àdduna du yàgg man leen nag ba ma jóge ci dem feneen ndax lu ma fekkoon samay waajur di ko def ba xëy bàyyee ko man dama koy eggale rek gën koo rafetal gën koo dëgëral gën koo saxal loolu mooy suñu cër. loolu aussi mooy cëru ibba Ibra Fall bi xam ni tey dafa am lu ko xaw a ndax dañu nekk ci koor te dañoo jub élection suba kenn du mën suba du mën a dem du mën a voyager moo tax mu ni ma représenté ko fi tey di wax rek ni man aussi euh, adjoint maire laa man maa topp ci Moustapha Diop nekk ndawam euh, ragal naa ni sax dana fi jaar ci kanam tuuti dana fi ndax moom it dafa am lu séq ak ñii waa Thiénaba yii sëriñ Pape mii Seck ak sëriñ euh, Cheikhou ak waa Thiénaba yëpp moom murit la Moustapha Diop waaye ku fonk Thiénaba la loolu ñoom xam nañu ko man xam naa ko en tout cas ñi bokk ci daayira bi yëpp xam nañ ko ndax daf ñuy jàppale ci suñu gàmmu yi ak ci événement yi ñuy def kon damay gàttal ndax dañu nekk ci wooru koor di wax rek ni man day tey kontaan naa trop ba tey lii nekk loo xam ne ni ñun dañ bokk ñëw taxaw ci jàpp ci ak lépp lu ñu mën def dana ko ci def di suñu xam-xam dana ko ci def bu dee suñu alal dana ko ci def bu laajee suñu deret sax ñu def ko ci ndax loolu la ñu gëm kenn ku nekk am nga sa fa nga ak fa nga jokkoo ñun fii lañ jokku lii la ñu gëm li lu ñu xam kon ñoo ngi gërëm ñépp di sant ñëpp wasalaam. Serigne Babacar Mbaye mi ngi leen di nuyu ci asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. nee mi ngi sant yàlla di julli ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nee na mi ngi wane mbégteem ci bis bi. di ñaan ci mbaaxu yàlla bis bi yàlla nañ ko yàgg di ànd di teew ak yéen. kenn bañ a ci barke yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam wax dëgg yàlla sama dëkkandoo la wasey mii yëg weesuwul mu am xew-xew bu toll nii may dëkkandoo ci moom mu ànd ak waa daayira bi Zimalage bi ñëw yëgal ma ko wasey vraiment yow mënuma laa fay yàlla rek moo la mën a fay kontaan naa ci moom bu baax kontaan ci ay waa këram ñu baax lañ ñu ñaan ci mbaaxu yàlla yàlla ñu yàgg ànd ànd bi di sant ñëpp di gërëm ñëpp di ziyaara sëriñ bi ak mboolem koo xam ne rek teew nga ci suufu tànt bi di ñaan ci mbaaxu yàlla sëriñ bi nga ñaanal mbooleem ku fi teew yàlla doole ñu jàmm ci biir ak ci biti إن شاء الله ربنا نمم من يقول وح ديجك لسختي لمو جت يكتي كنيو تلا الله خيسرين بدفعل كنيانك إن شاء الله مياويكو إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله الحمد لله